السلام عليكم الشيخ الخليفة سرين بابكر سي منصور ngi lay masawu coono noo ngi lay ndokkeel tabarakallahu di ziyaare ñi fi teew ñépp di leen ndokkeel di delloo nuyoo ak cant ngir seen teew fii jóge ci la président de la république fa tabarakallahu dafa am lu nu fi dajale li nu fi dajale moo di contrat moral bu nu seq ak al amin fekk ruux di nekk ci ñun ñuy noyyi bu waxtu wi jotee ñu seq kook moom contrat moral bu dellu ci tarbiya ndax daayira boo ko déggee dëgg dëgg dëgg di xam ni puukare taxul waaye dafa dellu ci tarbiya mu di daïra bu am histoire moo di ki joxe tur bi di Sëriñ Babacar Sy Sëñ Abdul Aziz wax ko dañu doon ñaan ndigal nga may nu ñu sos daayira bu jëm ci xadara bi da nga jox nu tur mu wax ni d'accord na ci jox leen tur dairatul abrar waaye mu teg ci ni innal abrar la fi naimin Y'a dugg mu nekk daayira boo premier résultat Nyar ñaar ñoo résultat ba mu di Mansour ak Serigne Cheikh ndax abrar motax serigne si leen ñu firi gamu à l'Abrar. mané xaw nañ ko de passage serigne Mansour ak Cheikh mais examen de passage réussi parce que sëñ Babacar ko wax moo leen noté moo wax ni xaw ma woon mukk ni dingeen ma gën a mën seen téere maam bi mu ni waaye danaa fëgg sama kàggu nafaraat ba dootuleen ma ko dàq satisfaction morale la amoon moom sëñ Babacar si bi mu koy wax kon euh, daaira bi war na mën a nekk yaakaar Sëriñ Abdou fa tabarakallahu mu di ko doxal waaye itam mu xam ni yaatuwul du yaatu mom rek mu nekk président à vie mu ni comme ay nawlem la ko seqal bu teyee kii nekk président bu ëllëgee ke la nekk président bu gannaaw ëllëgee keneen nekk ko ñu di ko awante ba agsi ci xalifa ñang mi tey mu nekk président bi xàmmeem moo mu doxale noonu waaye bu ni woon bàyyi leen ma fi pour toujours ñu bàyyi ko fi pour toujours mu nekk président daayira bi ma wax ni tarbiya la tarbiya nanguwul ku tële xaritoowul ak ki wax ni dama tële tarbiya mi ngi xaritoo ki wax ni fu ma tollu damay jéem ndax cheikh borom tariqa bi moo ko njëkk wax kiy gàntal xamul forsam nu mu toll cheikh wax ni himmatul insani qahiratun ala jamii al akwaan que la dimension de l'homme dépasse largement celle du cosmos cheikh moo ko wax te xam nit te tax mu wax ko yàlla àttee fa tabaarakallaahu moom Sëriñ Abdu eh, eh, yar yar nit li ko ci yàlla mayoon mayu ko kenn waaye nag mu opte pour nekk le serviteur ci la yar ñépp waaw damm darajaam ngir am ngërëmu ñi mu yaakaar ma ni loolu dafa am ci ku mu ko doon ki mu ko doon mooy kan mooy Cheikh El Hadj Malick Cheikh El Hadj moo tax mu taxaw wax ni lépp lu yàlla santaane def naa ko moom Maodo lu yàlla santaane rek nee na def na ko mu ni duma ni nag lu mu tere bàyyi naa ko ndax mësuma def lu mu tere waaw moom Cheikh El Hadj Malick waat ko fii ci zawiyem bi ci tàkkusaan mag ñépp ngi toog mu ni maa leen di ñaan ku xam ci man lu ma sharia jame jógal wax ko mu ni ñi may dundal ci biir néeg ak ñi ñi nekk ci biti laaj yemal kenn mënul taxaw wax lu ma sharia jame moom Maodo kon mën nañu wax ni bu nu tuddee xadaraam yaakaar a nga fa mu amoon taalibe bu mag nag bu ko fonk muy sëriñ Babacar Si sëriñ Babacar Si waat ni lépp lu mu am ci digganteem ak boroomam ñett a ko ko may pas-pasam ci Cheikh Al Hadj yaakaaram ci moom cofeelam ci moom mu ni du lu mu werd du kaamil bu mu jàng waaye pas-pasam ci Cheikh Al euh, koo bëgg xam dayoom seetal ñi ko yaakaar waaw boo leen seetal ci ngay xam nu mu toll fa tabaarakallaahu ñuy sant ñépp wax dëgg yàlla ñuy ñaanal yàlla ñépp taxawu ngeen ba taxawu lu diis ci yéen xam nga wax naa defe naa ci ouverture burdu daaw wala tëju burdu daaw eh, ma wax ni léeg ma taseeg nit mu ne ma ban magasin ngay jënd basin Mais ça fait 20 ans xottiluma son bopp mbubb eh, ay yu am pas-pas suis def de mu rafet rek ñu yéene ma ngir yàlla ak yaakaar bi eh, ñun jël engagement pour fay mais ñi moom bi xam taxawaayam ñu bàyyi leen ak ñoom ñu fayal nu leen ci biir ak ci biti euh, Sëriñ Abdul Aziz Al Amin bari na lu ñu waxtaane xam naa ni boobu mi ngiy wàcc waaw الشيخ الحاج مالك دفع وقتانك سين بابا كرسي كم ماغي واج سين بابا كرني كم موما تخي جوغين دار خمنا ني ياغي واج بور ويجي واو بور ويجي بروم ا أه. دفع ام نيوكو نيمي واو نيو نيمي باسكو غمو نيو ني faatu am na euh, faatu amul euh, li am mooy ñaar yu àndoon tàqali ko kenn ku ne ñu delloo ko ci cosaanam ruux kow asamaan la dëkk yaram matière la dañ koy delloo ci suuf ruux de ci euh, Saint-Chef Cheikh la mort n'existe pas ma ni c'est le processus de réintégration qui permet à l'âme de rejoindre le monde spirituel ma gis lu yéeme ci semaine bële ñu génn dama am benn góor bu attaché ci man lool màggee na ba bëtam muuru du du musulman sax chrétien la eh, mu feebar ma di ko seet euh, ma laaj ko doom bu góor bi ma ni ko comment va le mu ni ma il attend son ma ni ko ku ne waxtoom lay xaar ma ni ko du sa papa rek maniko way maniko jarak un malade ak lu febar ba tartar warul décourager ñi koy xaar maniko parce que tay xamulo sa papa yow la yalla dogal nga jitu ko wala mom moy dem maniko tànk ben noyé de des ci moom taxawu ñu tegaat ci une semaine gor giñ ñu doon xaaruma taseeg mom mu yor kanam di doxantu ma les secrets de la vie comme ni ko yàlla waxe yonent bi domaine privé m la wa yasalunaka an ruux quli ruuxu min amri rabbi yàlla mayul kenn le secret de la vie nga di ko interprété mayu ko yonent mayu ko malaaka mayu ko waluy domaine privé m la dafa am loo xam ni domaine privé m la ñett daf ma yéem ci moom c'est domaine privé d'abord wàllu ruux mais wàllu relation aussi les rapports relation xam nga nit ki xëyee est ki xëyee ouest ñu tase ci bëccëg bi waxtaan ba fa former une famille bu dul secret yàlla doo xam secret ku mu doon yàlla rek ko ko moom waaw euh, bi ci troisième bi mooy li wàcce aadama jële ko indi ko ci parce que dafa consommer le fruit défendu mais lu consommer parce que euh, euh, présence ci kanamam moko ko un homme. waxante ak un wa parce que soxnam solul won yére mom solul ci aljanna bi transformé saint esprit lañuy door a gis ni yaramu lañu def mi mësuñu ko won yëg mais lan mo fatelo adama parce que dañu wax ni la plus belle réussite de la création c'est le corps de la femme adam fàttali ko yalla waxoon mu consommer ko yalla ne ko da ngay jógee aljanna ci souffre. mu tuub jéggalu ñu baal ko mu ne ko me ba tey le prix du pardon mooy nga bi génn aljanna loolu moo ko indi fii ci ñu waaye ñu ñëw fii itam cheytaane topp lu mu mën ci yàqal nu dana ko def kenn moo défier cheytaane mooy Cheikh El Hadj Malick moo wax ni bu ma déggee nit ni seytaane dafa bari doole rekk ma jéppi ko Cheikh El Hadj Malick dafay laaj noo sàggane ba seytaane jot ci yow di la woon dooleem nee na boo préparé woon sa bopp seytaane du jot ci yow te bari na sax ku ni seytaane ma mën te seytaane mënu ko bakkanama ko daaneel parce que seytaane dafay tànn ngand ngand moo tax muy xeex yee eh, seytaane ma mën seytaane lii seytaane la Cheikh El Hadj ne ca la ñàkk fayda yem mu ni Malick de seytaane jotul ci moom ba di ko woon dooleem yooyu daje ci xadara bi mu di xadara boo xam ni boo duggee tey rekk ñoo yow mi dugg tey ñoo yem ay responsabilité ci gëstu dafa am ko nu tax a jóg kenn rekk la muy borom waaw wàllu tarbiya daayira tarbiya la waaye bu ko def puukare tabaarakallaahu sëñ Abdul Aziz eh, <laughs> ree daf may jàpp parce que léeg nit bëgg maa gëmloo li ma la sëñ Abdul daan def moom ngay def <laughs> ma ni ala ni <laughs> ma ni mukk bàyyi leen rekk ma dox ci ay trasam waaw dox ci trasam mais la mu mënoon euh, poussière am sax seenu ma ko waaw pour wax leen dinañu teg sunu tànk nag ci tànkam waaw ndax un guide loolu lay jariñ un guide lay jari xam nga maa ngi koy nettali xam nga eh, jox nit importance bi ko bi ko yàlla jox la ca nekk ci yoolu borom bi kenn xamul nu mu toll waaw moo tax ah eh, eh, doo sañ nag won kenn ni nga toll waaw boo ko defee rekk yàlla jéppi la waaw te Sëriñ Babacar si radiallahu taala dafa am lu mës a xew góor gi màmmaloo di ko ko nettali la xewoon kilifa kilifa gu taxaw bëgg ñépp gëm ko ku mu ni kaay ci man boo ñëwul mu tëkku la waaw tëkku waaw ci son bopp ñëwoo baax na tëkku la benn suba ñu xëy suba di nuy ji sëñ Babacar góor gi màmmaloo nga fa taxaw soxnaa ngi taxaw sëriñ Mansour a ngi taxaw maa ngi taxaw bi ko góor gi màmma nettalee ne kilifa googu di tëkkoo nit ñi sëñ Babacar geestu jël loxoom teg ko ci mbaggu sëriñ Mansour wax ko ne ko yéen de bu leen tëkku kenn ndax seen maam daawul tëkku kenn bu leen tëkku kenn ah, soxna sukkan teg xam naa ku tëkku ñetti nit ñu faatu de war nga foo seen kooko nga jàngal ko kursi ah, tëkku ñetti nit ñu faatu ah, parce faatoo kenn dogalu yàlla dikk dogalu yàlla moo dikk moo tax Euh, modestie lu am solo la waxuma fausse modestie waaw parce que fausse mooy li nga def ci sa xol boo sañoon nekk kilifa ñëpp waaye danga leen di naxe làmmiñ waaw boobu làmmiñ waaw danga leen di naxe làmmiñ dama modeste nangam nangam te boo sañoon yilif ñëpp waaw yàlla mooy kilifa ñëpp waaw bi ci des mooy wàllu doxalin eh, <laughs> wér d'abord wér gi yaram xam nga maa ngi koy nettali sànq bi mu fa ñëwee waaw ah, pap xalifa bi eh, dama jël benn texte ma liirloo ko sama soxna ma ni ko liiral ma texte bi parce que takkuma lunette mu ni ma ah moo ne ma ne takkuma lunette kat ma ne ko c'est alert alerte waaw ma ne ko boo takkul lunette doo gis bu ma takkul lunette du ma gis ma ne ko c'est une loolu dafa am lu mu lay yëgal rek waaw dafa am lu mu lay yëgal dafa am ñaari défi yu nu yàlla lancé lancé ko al insaniya waaw l'humanité ñaari défi te ko relever mukk c'est la vieillesse et la mort waaw boo guddee fan foog nga màggat te la góor ga waxoon góor gu màgg dafa am lu ëpp quatre-vingt-dix ñëw di seet si ku màggat ni moom fekk ko fa mu fekk fa sët bi mu ni sët bi ana sa maam mu ne ko dafa génn mu ne ko bu dikkee ne ko maam diw ñëwoon na fi nee na naa la wax ni yaaram ya ñett na waaw nee ko yaaram ya ñett na wax ko itam ni ko li ma sori woon yépp jege na ma mu ne ko wax ko itam ni ko la ma bari la woon yépp ñàkk naa ko bi maam ji ñëwee mu ne ko maam diw ñëwoon na fi nee na naa la wax ni yaaram ya ñett na mu ne ko xanaa yet lay doxe ñaari tànk bu ñettee yet a fa waaw mu ne ko waaw yet lay doxe mu ne ko nee naa la wax ni la ko sori woon yëpp jege na ko mu ne ak kon gis bànneexatul ne naa la wax ni la mu bari le yépp ñàkk na mu ni kon gémmiñ ci ñoom ci yooyu lañu daan waxante waaye euh, ak màggat dafa am lu koy indi waaw dafa am lu koy indi mënuloo fexe ba guddee fan ci jaar damay wax ni man de diggante ñetti at yi li ma gis ci ñuy tawat oom yooyu metti diggu gannaaw guy metti ndiggu luy metti daf ma jaaxal sax waaw ba ma am sama un grand professeur c'est c'est un médecin un grand professeur mu ñëw kër ga ma ne ko nu nit di def ba mucc ci feebar yu sew yi mu ni man ndox ak dox mu ni man ndox ak dox mu ni ma del naan lu bari te dox ndax ñi dugg ci oto ñépp mbankaay la yendoo waaw waaw bi toogaayu mbankaay la moo indi oom yi metti moo indi ndigg luy metti mooy indi yàqu déggu gannaaw buy metti waaw rek da xëy suba rek màggat waaw ngay xëy suba màggat eh, man léeg-léeg ma taseeg nit rek ni ko oh, buur màggat màggat waaw waaye damay xalaat ma ni waaw man ba màggat màggat luuma ayul ayul eh, la laa eh, nan la ko sëñ Cheikh Tidiane si waxe la vieillesse est tellement beau oh, wax ni la vieillesse eh, c'est une belle victoire hein. parce que image bay tax hein. waaw xam nga am na béjaaw rafet ah tudduma kenn tabaarakallaahu mom dal waaw ah, ah sëñ Cheikh daf wax de la la vieillesse est faite de beauté waaw la mort est faite de majesté waaw lol, la waaye gudd fan wagnewul dara waaw Cheikh El Hadj ne ne na bu leen ko rusa ñaan yàlla gudd fan ñaan len ko ko bu ko dogalee ci yéen ngeen jël parce que daf lay permettre ngay jaamu sa borom rek fa toll waaye ragal yàlla bu xëy suba nag ni ko jël ma ah boobu boo ko defee yàlla jéppi la boo koy def yàlla di la jéppi ñaan ko dund bu la ko mayee nga jël di ko jaamu rekk muy notte waaw tax na tabaarakallaahu ñi ngi sant ñépp waaye ñu sant suñu mbokk yi nga xam ni ñoom la jox service bi ñu koy doxal ci kër gi euh, maa ngi koy wax euh, mustafa Sëriñ mustafa euh, ma ni ko metti na ma ni ko mais nag pexe amul waaw ma ni ko pexe amul ah, ah itam rekk dana di dalal suñu xel dana nu permettre it am yu ñuy def waaw mën a jël suñuy suñuy yitte mu am fu mu nu féete ba am lu ñu tal te maa ngi wax xalifa bi léegi bi muy door a agsi moom sëriñ Babacar Sy Mansour dama ko laaj ma ne ko del tukki waaw ma ne ko del tukki ma ni ko dama am baay bu ma ko digaloon muy sëriñ Murtada Mbàkke yal na yàlla yokk leeru bàmmeelam dama ko fekk aéroport mu war a tukki eh, avion am retard ñu yóbbu ko ci benn chambre foofu ma ñëw gendarme bi wax ma ni ah sa pap sëriñ Murtada ngi fi ma ne xaaral ma dem nuyu ko dem fekk ko ci néeg bi muy xaar avion bi war a ñëw mu bëgg ma toogloo ci chaise ma bañ waaw parce que bu doon alxaaji Abdul Aziz duma toogandoog moom ci chaise waaw mu ni ma Baye Malick waaw moom sëñ Murtada bàyyi Malick rek la ma daan wooye ndax Cheikh El Hadj wëy juram la te moom lañ ma tudd eh, sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ma daan woo moog sëñ Mansour rek ñoo ma daan wooye maam Malick ci famille bi waaw sëñ Murtada ni ma Baye Malick ba di ngay tukki ma ne ko waaw léeg-léeg ma tukki de ma ne ko waaye nag sama tukki ñaare fokk mu mat juróomi at mu ni ma gis nga réew mi dafa am lu diis gann lu fi nekk mu ne ma feeg jëloo avion bi survolé Dakar mu ne ma foofu la ngay bàyyi li diisoon mu ne ma waaye boo delsee it nga koy jëlaat <laughs> ànd ak moom wàcc mu ne ma del tukki del tukki del tukki moom laa wax xalifa bi toog ma ne ko del def léeg-léeg nga tukki parce que itam ñëwul dara sëñ Babacar si dafa wax ni maa ngi doon préparer tournée bu rëy diggante Afrique ak Europe waaye seen maam yàlla dogal ci moom mu génn àdduna ma xam ne gàllankoor ñëw na waaw mu ne moo ma tere dem waaye tabaarakallaahu ñun bu ñu nekkee maa ngi koy wax léegi Pape ma ne ko mais bu nit ñëwee di ma wax ni Tiwaawoon dafa wéet man ko ree daf may jàpp parce que boo ma nee Tiwaawoon dafa wéet mooy kaay dem Tiwaawoon toog fa mais benn question rek laa lay laaj dama lay wax ne la est-ce que bàmmeelu mag ñaa nga fa bu fi bàmmeelu mag ñi nekkee dëkk bi wéetul waaw waaye wax rek waaye moom de def li li fi mag ñi liggéey du fi jóg mukk yéen a war a seet fu ngeen di jaar ba jariñoo ko parce que mi ngi fi mi ngi fi ba tax na loolu ah bu ngeen amee soxla ngeen dem doxi ko bu ñu amee soxla ñu dem doxi ko bu farata jotee ñu tase ca farata ji bu jeex lool maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu ndax jigéen ñi la waroon njëkk a waaw ñoo ko moom tax na tabarakallahu ñu nuyu leen ñaanal leen yàlla barke na yàlla defal barke seen njaboot ci biir ak ci biti ah maa ngi jeggalu sama xalifa waaye sama wayjur tabaarakallaahu waaye sama xarit waaye sama complice waaw yenu seq dafa bari waaw yenu seq dafa bari lu ne lu ne xam naa ko ci moom ba mu des naqari deretam xaw ma ko ci moom mukk waaw nit bu yiw la daal fa mu bokk ca ndar ku fay jigéen rek tari nga waaw ku fay jigéen tari nga alquran waaw sunu wayjur wu jigéen mi nga xam ni ba mu feree lañ ko fa yóbbu pour yar ko fa soxnaa sukkan sëñ Mansour moo wax ci làmmiñu boppam ni ma budul woon sama yaay soxnaa sukkan maag sëñ Cheikh duñu xam dara waaw mu ma waaye bu ñu nuy jàngal mësaan tukki and ak seigne Babacar parce que seigne Babacar li mu toog fii bariwul wa motax seigne Abdou gane woon àdduna ba am 2 ans seigne Babacar door koy gis parce que bobu mi ngi ci reprendre les activités de Cheikh El Hadj Malick ah daf train rek pour mu gis sëñ Abdou dañ ko joxtaan tànnilaan mu yóbbu ko gaar ba waaye mu wax sëñ Babacar ni ko boo ma fayul boo ma fayul duma la jox Abdou Aziz sëñ Babacar ni ko ah, bàyyil ma jox la li ci son poos nga may ma mu fóon ko ci jëbi jël ko fóon ko ci jëbi delloo ko ñilaan mu indi ko moom mu continuer ak train moom sëñ Babacar yooyu eh, dañuy wax sëñ Abdou sëñ Abdou bu ñu waxee man leen man maa maa ko tuddee le témoin waaw li tabaarakallahu lu xew ci kër gi nekk na ci témoin waaw sànq bi nuy añ lay wax Pape Cissé mii ma ni ko sëñ Babacar daal ku yéeme la ma ni ndax ku ma sa dégg ni yaa ngi jaay sa kër bu yónnee pour nga jaay ko ko boo nee duma ko jaay rekk mu bàyyi ma ni mais fii ñu ko denc yónni na fa sëriñ Abdou juróomi yoon ci boroom kër gi benn naar bu nuy wax Hachim Zeydan moom moom moom yónni na fa sëriñ Abdou juróomi yoon naar bi ni du ko jaay wallaahi Hachim Seydaan xale yi Tiwaawaan yëpp moo leen jàngal saaga mësuma gis mukk naar bu kàccoroon bu mel ni moom waaye man daf ma wutaloon benn pot bu may defal tàngal mu ñëwee rek mu ni Maodo Maodo Maodo kaay ma ñëw mu dindi tàngal jox ma xale yi ma àndal bu leen saagaane ku jege bi sigam mais sëñ Babacar yónnee ci moom juróom yoon mu ne du ko jaay sëñ Babacar julli timis ba noppi rek génn ci kër gi wuti kër Hachim ak tànku nenam wallaahi dem ah soxnaam parce que soxna nit ku ñuul la amoon tant Anta Ñang waaw yaayu màggat Jóob moom naar bi jurul woon màggat ci mariage bu njëkk bu tant anta ñang la ko tant anta amee woon sëñ Babacar fëgg buntu seng bi euh, tant anta xool ni ko Zeydaan jógal pap xalifa ñëw na naar bi ubbi bunt bi sëñ Babacar a ngi jàkkaarloog moom mu ni ko papa ba jàmm ngay dox sëñ Babacar ni ko affaireu kër gi ma yónni woon Abdou rek mu ne ko papa kër gi tey bu doon jamaa sax ma gedd ko waaw mu ne ko demal loo joxe baax na joxe sëñ Babacar ne ko déedéet nag bàyyil ma yónnee Abdou nga wax ko prix nga jënd ko waaw yépp yépp yépp yépp yépp moo amee waaw moo amee les les les papiers de sëñ Babacar si moi amé les papiers de Serigne Cheikh Tidiane Sy tabarakallah marque c'est une marque de confiance wa al amin mom kay xanaa fa amee jiko jikko tukkuloor rek mom dal ñun ñëpp nañu ba bëgg ñak suñu bakkar waaye rek yar parce que moom loolu la xam yar la xam tabarakallah ah ñuy ñaan yal na ko leeru mag ñi mu am yëpp fekk ko ci bàmmeel te dina ko fa fekk incha allah yàlla taas nu ci barkeem kii fi desit di sëriñ kër si yàlla bàyyeen di ko fi ba ca kanama kanama kanam ak képp ku ko ko yéene la bàyyeen ko fi ba ca kanam kanam ah fa mel ni rekk guddi gi moom moo ko moom dañu doon eh, nuyoo rekk ak sant ñii nga xam ne ñoom la ñuy jox service yi ñu amee ko ci kër gi fa tabarakallahu ñaanal leen yàlla wér ñaanal leen yàlla sutura ñaanal leen yàlla barke barakallahu yooyu yëpp xaj na ci leeru kër gi xaj na ci leeru mag ñi ñu ngi sant ñépp nag wax dëgg yàlla waaw ñi ñëw ñépp ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla tey ñaan jàmm ci réew mi waaw yàlla defal nu ko waaw yàlla nu ko yàlla defal ci biir ak ci biti waaw mais dara xewul waaw dara xewul lu mësula xew xewu fi ah, dara xewul moom kenn xamul li li am lu mu doon dëgg dëgg dëgg parce que man problème politique ak yi waxuma ko xam nga man lu ma yitteel xale yu ndaw yi may gis ci buntu école yi des gamins de rien du tout c'est ah, un avenir Ce que je veux vraiment mooy bu sandwich de ko lekk ci te démb boolu añ bi la mag yi wër ko yi ci sagesse duñu parce que yonent bi nee na sàq mi mag dafa ñaaw waaw sàq mi rafetul moo tax yonent bi daan wax ni bu leen yar mukk seen doom yu ndaw yi ci xiif bu yàgg mu ni parce que bu ñu màggee dafay ñaawal seen sàq mi waaw te sëñ Cheikh Tidiane si dafa amoon benn njaboot bu nekkoon ca kër ga muy mbay géey Babacar Géey sëñ Cheikh daf ko daan tooñ di ko wax ni ko yow rekk laa gis ngay lekk sa nopp niin yow laa gis ngay lekk sa nopp niin defal ndànk xam nga loolu lu ko gën a ñaaw amul mais xale yi may gis ci mbedd mi Euh, lenn rek laa gis ñu def ko ma approuvé ko mooy uniforme yi ñuy sol ndax dana musal ki kàttanam àggul ci jënd yëre bu cher waaw ñëpp niroo ko mais euh, mu gis groupe boobu ma xool ma ne gis gën le secret de bon dans ce groupe la de jeunes de rien il y a un futur président de la République. Il y a un futur ministre d'État. Il y a un futur premier ministre. ñi nga boot seen sakkaatoo rek ci dem Yalla rek xam kan la ci waaw moo tax ko xam nga gëm Yalla yombuna. mais wóolu ko mo jafé. Yalla ku ko wóolu boo nelaw mais boo ko wóoluwul lu yëngu nga tëb waaw nañ ko jox cëram waaw nañ ko jox cëram waaw soxlawul sunuy bakkaar pour nekk yàlla yàlla dara mënu ko tere nekk yàlla bu ñépp àndoon bañ ko jàmm yit mu nekk yàlla loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk yàlla na nu jéggal sunuy manqué manqué ubil nunak buntu yakar buntu yakar hal ini nekk nyep nyep nyep nyep nekk jam ci jam ci bir nyep nekk jam ci biti wa nga tabarakallah na ngi eh, sant nyep di ñaanal nyep allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam